ñeneen ñu mel ni ñun sa biir bureau lan lay fekk juste pour humilier on les a confiés les pouvoir tous les pouvoirs pour ñu soppi suñu nekkin pour ñu aar ñu ñoom ñu jël ko di ko xeexee pour toroxal ñu c'est ça la vérité te loolu dafa war a dakk parce que bu ju bu ñu juumee ba yaakaar ne benn yoon lu ton ni tarfatal ay ni mën nañ ñu ko xoqatal mooy ñoom dañoo juum ci dëkk juum ci époque wallahi al azim dañ ko yàgg a wax dañ ko gëm doonte dañ ñuy rey bi ñu jóg ci xeex ñu nekk loolu ñoom booy boo ñu comprendre booyee boobu parce que ñun xeexaluñu suñu bopp ñoo ngi sant yàlla alhamdulilah kii dafa bàyyi eh, njaboot ak i sët kii bàyyi njaboot ak i sët ñu bàyyi ñu ñëpp suñu ay njaboot ak génération yi war a ñëw ban Sénégal lañ fa war a fekk loolu ñu tax ci xeex Sénégal dafa war a bokk ci réew yi ñu gën a ràññee ci àdduna bi ci lu baax ci lu rafet ci lu yiw te loolu foog mu am génération bu sacrifié wu xeex ko te génération boobu mooy génération wu tey bi te génération boobu du génération bu nekk ci parti politique kese de génération boobu état d'esprit la ñoo nekk ci administration bi di bañ nekk ci armée bi di bañ ci force de l'ordre yi di bañ nekk dans tous les segments de l'état di bañ lan ngay gis duñ leen mës a dàq wala affecté pour faute de compétence wala délit déedéet c'est parce que d'accord notre secrétaire national chargé de Sénégalais de l'extérieur nekk un vaillant diplomate di def liggéey bu mucc ayib il a toujours servi l'État parce que Pastef la bokk Aïssata Tall rappelé na ko ak ñeneen du moom kese ku ñu soupçonné que ni yow waxuma la Pastef nga bokk mais xamante nga ku nekk Pastef sax même ci justice bi sax yóbbu nañ la fongale mi maatam wala wala mais réew nan lay nan lay doxee noonu qu'est-ce qui va se passer tous les bons vont être écartés et les médiocres vont s'approprier des pouvoirs sa s'accaparer des pouvoirs qu'est-ce qui va se passer mais c'est la catastrophe looloo indi réew mi guuta gi mu nekk yëpp ku ñu mënul jàpp def loola li ñu bëgg a def mii ci justice mii ci euh, euh, défense ak lu ma di doon soo résister ne man d'accord ma ci lii sax sa sanction mi ngi ñëw mbokk yi loolu mënul wéy ci réew mi ala kulli donte dañuy rey ba ñu jeex mais dañuy taxaw xeex résister ni ñu ko constitution bi maye parce que nag lépp lum leen jaral ngir pérenniser seen pouvoir bi nga xam ne day yàq Sénégal day delloo Sénégal ginnaaw bu leen ko jaralee benn ñun dinañ ko jaral téeméer pour ñu xeex ngir jël Sénégal delloo ko Sénégalais yi li ñëpp bokk ñëpp jot loolu ñoom foog mu leer ci seen bopp du benn action bu ñu mën a intenté donte dañuy faat suñu bakkan buy tax ñu ñu deltu ginnaaw Sénégalais yiy jóg di xeex xamuñu ñu gisuñu ñu peut-être ci télé bi la ñuy gis mais dañu jàpp ne dañoo décider cette jeunesse là a décidé ne duma ma jëlati gaal yi déedéet. damay soppi sama réew toog sama réew tedd ci sama réew ki nga xam ne dafa dëkk ci banlieue bi wala ci région yi ndékki da koy kolo kolo day gobar jaasi bu añee da ciy reer wala añ bi bu matul sax reer ku nekk débrouillé wu guddi gi am nag jour quartier yoo xam ne nit ñi par shift la ñuy nelaw ñii dañuy nelaw bàyyi ñii nelaw ndax dafa xat xam euh, nit ñi sonn mais ñooñu dund ko deegal la ñu dund nga yaakaar na bu ñu gisee benn projet boo xam ne créé na espoir war a mën a sopp seen réew du leen jaral ñu dee benn yoon pour projet boobu baax nañ delloo ci seen xel te xam ni douze ans de terreur douze ans d'échec douze ans de gabegie dafa doy sëkk nañu lem seen ay bagages organiser ñu ay élections yu leer Sénégalais yi tànnal seen bopp parce que du ñoom ñoo war a tànn euh, comme ni ma ko waxee ci seen ay wax ñoom mën nga cee yendu di génne ay incohérence te loolu comme sénégal yëpp xam nañ ko léegi ña ca bitim réew sax xam nañ ko jarul ñu ci attardé wu mais li gën a yéeme mooy manque d'humanisme bi am léegi ñàkk yërmande bi am ci ñu ñuy jiite ci segment yëpp moo xam pouvoir judiciaire bi la moo xam défense ministre de l'intérieur la ak ñi mu àndal ainsi de suite parce que da ngay gis yenn pratique ak yenn torture yoo xamante ne nii ñu ngi xalaat suñu frère Abdoulaye Touré ndax bakkanam mënoon na ci des waaye des étudiants yu ñuy jàpp ñu ngi ñu koy signaler xeetu torture bu ngeen xalaat ñu ngi leen koy def nañu arrêté loolu policier bu tiim nit di ko torturer wala di ko dóor xëy na ëllëg sa mago koy may soxna ndax Dakar dëkk dox dajale nañu xam ne ñoom ñi ñee leen di romb ci tali bi di leen yóbbaale parce que dañuy jàpp ne ils pour nous mais dafa nar jur loo xam ne dañuy xoolante ba du en Sénégal léegi da ngay gis ne nit day yéene nit mu dee tellement que dañoo yegg loolu rek mooy bilan Macky Sall daf ñu indi ci niveau boo xam ne nit day dee sax am ñu ci kontaan te nit même bu dee moo gën a yées ci àdduna bi bu deewee sax war nga am tuuti compassion waru ci kontaan mais malheureusement niveau d' animosité boobu loolu la ñu indi te mën na ñàkk nañ delloo ci seen xel te xam ni joxuñu leen pouvoir doole kaaraange ak alal pour ñu walbatiku di ci tëcc di ci dóor seen seen seen askan koo ci dóor mu faju boo moytuwul yaa koy yaa koy jëndal garab wala sama nga koy jëndal garab wala sa beneen bokk parce que fii ñunu neen la buñ fay naree yegg nag ba nga xam ne tey policier pour mu ñibbi koñam day obligé su meeku sol yëre normal ça veut dire que l'heure est juste parce que tiit na man gëm naa na ñu bëri ñu nekk fii nii waxuma ñëpp de mais am na ñoo xam ne xëy na ñu ngi leen di def loolu ñu bëggul def waaye bonte buñ lay def loolu bëggul def koo ku jàpp nit di ko torturer wala di ko tulli wala di jël euh, fetal di ko dóor yaa ko tey buñ la ko def lawul doon yaa ko tey sa xol moo soxor nga bon fas yéenaa euh, gaañ nit loolu duñ ci excuser benn benn force de l'ordre parce que jàpp nit dem dugal ci oto yóbbu police dóor xaju ci mbéj xaju ci leneen xaju ci waxuma laa nag nga tiim nit quatre personnes tiim ko mel ni ñoo xamante ne ni dañ ne kii dañ koy lekk vidéo yi ñoo koy wane te amul dara lu ñuy inventé te ñoom war nañu rus loolu soxlawul tëj internet soxlawul tëji télé y a 17 millions de sénégalais y a 17 millions de télé c'est ça la vérité vidéo yi ngeen gis ni yëpp ay sénégalais yi taxaw seeni balcon di ko filmer parce qu'ils sont contre ces ces ces pratiques là qui datent de l'époque je ne euh, mbokk yi euh, dañuy woowaat encore une fois présent Macky Sall mu bañ a déglu ñi koy wër di ko gëmloo ne terreur ak